من كان شكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا شكري لرب كريم من كان شكارا وأرتجي منه الدارين أبكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وسكرا وذكارا وجهت وجهي sahri nabi sanadi lil akrami rafi wahabi zaka جلا قاهرا وجبارا فجاهتني ربي بالآلاء هب لي أن أعود للبرير لكل salaamaaleykum sëñ Mbaye mi ngi ziar baax ñu fekk leen fii si jumaa ji mu mel ne bis bi da ngeen koo ubbee ak njàngum alquran. waaleykum salaam maa ngi lay nuyu bu baax sëñ Moutalla di la dalal jàmm di rafetlu seen teewaay ci bis bi di nuyu mboolem ñi nga xam ni ñoom nga àndal. waa di wax ni rek xam naa loolu nga laaj muy wàllu njàngum alxuraan mi damay wax ne naka jekk moom moo daan ubbi moom lañ daan ubbee bis bi ki suñu waajur daan ko def ba tey suñu xalifa di ko def suñ seexu naa ndigal loolu rek lañ continuer mooy di ko teewe at mu nekk fii ci jumaa ji ñu jiital njàng alxuraan bi di diggante suba nag ba fi ñu fekk nii jàngagul na ñetti kaamil ak mbooloo mi ñu am nii te bi gàmm gi dooree ba léegi daara ji fi nekkoon ñoom tamit ñu doon saxal kaamil bi bis bu set ñu ko daan def ba bis bi ñu am fukki kaamil ak juróom kon buñ ci doolee kaamil yi ñu fi ne day mel ni limu kaamil yi takku na te tamit dañu kon ne jàng ni ba keroog tisbaar loolu nag moom mooy yàgg di ubbi bis bi moom mooy tam cosaanul bis bi waaye nag da cosaanul dëkk bi tamit daanaka loolu la mooy alxuraan ndax mooy moom la ko borom sañcee woon léppam alxuraan la woon moom la doon jiital ci léppam euh, bu ma ko sañee waxtaan dama naan dunduk dëkk bi mi ngi aju ci dunduk alxuraan rek fa jamono ji nekk na fi alxuraan di dund rek bu fi alxuraan di dund rek jamono ji nekk dëkk bi day day dund rek di gën di barkeel di gën di yéeg ci kaw ndax loolu la ko borom sance woon te mbir mu nekk la ko sanc da cey am da am da cey am doole moo tax nag loolu nga laaj day mel ni rek moom mooy lépp dëkk bi ginnaaw boobu nag biñ ko tàmbalee ci alxuraan comme ni nga ko waxee fekk nga ñu jàng ñetti kaamil en même temps tamit dinañ ko ne fii ak tisbaar li mu kaamil li ñu am rek li mu kaamil li ko jiitu woon ñu jagleel ko suñu waajur ya ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo tëdd badar ak mbooleem ñi nga xam ni ñoom ñooy taxaw bis bi ba léegi ñu ñaan mu jëm kanam gën a taxawaay bi ci suñu waajur amoon seen Cheikh naa mi ku fi nekkal ak mbooleem njaboot yi ñu ñu ñu ñu gën a am kàttanu mën àggale bis bi foo xam ni bu kawe njortu la taxoon borom di ko def incha allahu rabbi donc ñu ngi koy ñaan ci barkeb borom bis bi di ko ñaan ci barkeb borom Touba di ko ñaan ci barkeb yeneen bi salaa salaam mi nga xam ne moo tax ñëpp dajee fii waaw salaam bu fekkee am nga beneen laaj dem ah kay jërëjëf waaw ah, kay jërëjëf سنشور من بعد سيك بغير ما لذي الألم te leen gërëm te santaat suñu borom mi nga xam ne moo ñu may lañ ko ñaanoon daaw bu déwee na teewaat fii suñu borom may nañu loola waaye lañu waxoon rek ci liñ nekk ñu gën cee farlu te gën cee soññ suñ bopp ndax nit bu ànd jàmbaar nekk yaafus da ko yomb loolu te sëriñ bi nga xam ne moom lañu àndal ci lii nga xam ne ci doon woo te dara génn ci lislaam bis boo sàgganee rek nekk bi yàppus te loolu wër loolu nag liñ ciy xame mooy jàpp ci sëriñ Muntaxa mi nga xam ni moo fa nekkal sëriñ bi ñu di ko sant bu baax te tey ñaan suñu borom bi tabaaraka wa taala mu defar ab liggéeyam te sàmmal ko ko te liggéey boobee tam mu jël sunu liggéey dugal ko ca biir liggéeyam boobee suñu borom nangul na dafay jaar ci ñun nag at mu jot bu dajee fii ñu xam li ñu fi dajal lan la ak lu tax at mu jot ñu bàyyi suñu yitte ñëw ñëw daje fi dumpo dumpoo kare moom ay jàmbar yi fi nekkoon am lu ñu yëkkati woon mm-hmm. amoon pas-pas yu wér ci nii mm-hmm. liggéeyal yàlla ak yorente bi mm-hmm. bis bi bu jotee luñ man ak luñ xam dinañ ko ci def lañ xam tam dees na ko wax ngir nit ñi mën cee jariñ suñu waajur nag mu dox ba agsi ci moom mm, ñu koy ñaanal bu baax a baax suñu borom yi nga xam ne mooy bind ab jaam di ko fi indi di ko fi jëlee. Mhm. moom mi ko fi jëlee. Mhm. yàlla yokk yërmaane ci moom. te taxaw li mu bàyyi ginnaawam lépp. muy barkat Cheikhul Khadim. ginnaawam tam njaboot gi taxaw takkaayu rek. Mhm. ni daal ñoom lii nga xam ne moom la seeni waajur doon def. ci tam la ca maam ba ci ñoom. ñooy doom seen wàll bëgg nañ ko def ba mu mat. te dara du ci manqué. moo waral yitte ji yëpp rek. bisu badar bi jotee da gis kenn ku nekk rek yitte jëm am lu mhm. dara lu dul bis bi nu ñu fexee ba ba mu taxaw nit ñi fi ñëw ak coono yi ñuy jànkontul yëpp rek mhm. nan la ñuy fexee ba bu ñu ñëwee ñu maslaxaw leen coono mhm. moo waral bu ñëwee ñu fexe dalal leen bu leen dalalee ba noppi ba ndallu ñu woo leen jàll leen ay kàddu yoo xam ne dinañ ci jariñoo ci jëfandikoo ko ba tax loolu doyut moom mi nga xam ne nag moo doon alaaj sëriñ mu tàmbali woon loo xam ni at mu jot dafay tànn kenn ci ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi yaroon wala bokk muy kenn ki nga xam ni euh, ci njabootam la bokk ñu di ko tudd sëriñ bi am ay melokaan yu ñu yoroon yi dëppoog diine am ay melokaan yoo xam ni am nañ ko tam rafet lool te mataroy te nit ñu umpule ko ñu fàttali jëmm jooja fàttali jëfam moo tax at mu jot tam ñu tànn kenn ci njabootu sëriñ bi jox ko. ñu mm-hmm. kat tey jii euh, ki nga xam ne moom la war a jëlee bindu ci moom day. Mm-hmm. Euh, daaw diw diw la war a doon. Mm-hmm. daaw nag ñu tànnoon ñu na ku ñoo soxna Fatou Dieng moo doon bokkoon ci. Euh, njabootu sëriñ bi ñu ci ci jigéen. biñ noppee tam ren jii ñu jëlaat ñuy wax soxna benn gaabo. nga ne moom daa bokk ci ñi nga xam ni bu kee magee ci ñun ñu sëriñ bi ñu sëriñ bi bàyyi woon te mag ki wala ci njabootu sëriñ bi mu mag ki ci jigéen kii dem bokk na ci ñu jigéen nekk gone ndax bi sëriñ bi génn àdduna juróomi at ci la tool kon kooku gone la lool waaye nag loolu duyu ko duyu ko ni sëriñ Tuubaa rek mooy sama waaju toogul tam di jël boppam teg ni man gone laa bi sama waajur di génn àdduna kon lu mu mënul rek looloo ma ko teg mm-hmm. defut loolu moom tam dafa xam ni jigéen la mm-hmm. ñàkk na waajur mu teel yëg ni ñàkk na waajur mm-hmm. ba tax mu jóg takkaayu ba nekk jàmbar ba tey jii ñu war a fàttaliku yenn ci ay jikkoo man cee roy ngir bu déwénee ndax bari na yoo xam ni ñu fi nekkaloon di di maasante ñoom ñu ay magam di ay kilifaam ku ci nekk rek liggéey na la ba am sa ngërëm te teewut mu liggéeyal borom këram ba am ngërëm lu borom këram ma gëm ni nag jigéen ju toll noonu su nekkee ak jamono toll warees nañoo feeñal ay jëfam wala ñu xamle tuuti ci ay jikkoom yoo xam ne des na ci mën a roy ñu leen soñwaat yéen tam yéen ndaw ñi ñi toll ci jàng waaw ngeen ngeen góorgóorlu ci ci li ngeen nekk mhm. te te bañ koo saggane def ko muy seen yitte mhm. ndax adduna moom ñi raw rek dañoo am yitte ju kawe rek moo tax ñu raw mhm. ñeneen ñi waaw yàlla suñu doon def ngeen ay ndaw yu am yitte yu kawe kon barke seen ndaje mi itam ni ñu suñu borom mayee kattan bu ko mën a defee ma yàlla kattan bu ko ëpp ba niñ ko bëggee ak niñ ko yéenee lépp ñu mën ko matale bu barkat Cheikh Xadim asalaamaaleykum wa rahmatulah aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taalaa alaa sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman hamdan li munzili danaa wa daay ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفع بي عن البلاء ثم لا من زما لا مرض يبرأ بلا بد وفاد بالغرض محمد طبيبنا الحكيم آل وصحب ذوي العلاي ما احتجز الأسقام waaw asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu suñu kilifa Serigne Cheikhouna Gueye di ko ñaanal suñu borom dëgëraay dëgëral taxawaay bi ba naal yi muy am ci yoon bi suñu borom may ko kattan ba mu àggale ko ci jàmm waaw comme ni ngeen ko xamee rek fii mooy kër Serigne Cheikhouna Gueye ci bâche bi la ñu nekk nii fi la ñuy kii berne yi ci njiital ci njiitul soxna Ma Astou Gawane fii la ñuy nekk ak berne yi comme ni nga ko gisee si image yi rek incha allah gan yi fii lañ leen di dalal di seen leen berneel comme ni nga ko xamee ci bisu gàmm ndax ku wax gàmm di nga wax jàng alxuraan ak jàng xasida waaye ku wax aussi di nga wax berne moo tax comme ni ko sëriñ bi bëggee rek noonu lañ ko fas yéenee defee incha allah. waaw waaw comme ni ngeen ko xamee rek gàmm gi moom chaque année day gën di yokku di gën a jëm ci kanam. day gën a neex di gën a yàgg di gën a jëm ci kanam aussi chaque année rek année bu ñëw rek day dàq bi ci des incha allah. waaw waaw waaw comme ni ngeen ko xamee aussi gàmm moom ak ni ngeen ko gisee décoration bâche yi chaque année day gën di yokku te dañuy xool ak jamono ni mu ni mu li rek noonu lañ koy jéem a doxalee. incha allah waaw tey moom incha allah fii la ñuy xaar gan yëpp pour recevoir leen képp ku fi ñëw moom sa xol dina sedd ndax gàmm moom comme niñ ko xamee rek dañuy gàmm dañuy berne aussi. ñu fekk la fii tey ci gàmmu Badar mel ne yéen a ngi ci bernde yi ak wàccaay bi ak ndékki yeeg yooyu. waaw asalaamaaleykum wa santaat yàlla rek santaat yàlla bu baax sant Serigne Touba bi ñu ko fekkee waatee di sant suñu jàmbaar ji ñu nàmpatal ci lii ci borom Badar. ñu xëy rek suba teel kër sëñ Cheikh naa xalifa laaj sëriñ Gueye di ko ñaanal mu gudd fan lool te wér ndekki nekk ni muy bernde yi ñuy sant bu baax a baax a baax ginnaaw bi ñu ko fekkee waatee. <laughs> loolu mbirum Serigne Touba la mbirum Serigne Touba la lu rafet rek Serigne Touba moo fa moom lu baax moo ko moom. moo tax luñ ci mën rek bu soobee yàlla dinañ ko def lu am ren rek bu déwénee bu soobee yàlla day gën a yokk du ñun du du kenn Serigne Touba la Serigne Touba la yàlla def noonu. loolu lañ am yéene loolu lañ am yéene dañuy am yéene képp ku fi ñëw rek nga sant bu baax a baax loolu rek lañ am yéene wa najjihim wa xaafihim wal tuf bihim wala tuwahisum bi kusri zanbihim fa innahum wa in asawka ya ahad li xaflatin lam yusriku bika ahad wa innahum abdaanuhum la taqdiru ala balaika li duxfin yazharu qulubuhum laysa tamilu abada ila siwaka minuna ila ada lakinama talazazu ljawari abdaahum li axbai lqabaihi فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولا هم بالذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن الغيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم الجنة سمعا فيهم غدا وجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بإزديادهم تقاء وجعل جميع العلماء عاملين وجعل جميع العاملين مخلصين وجعل جميع المخلصين زايدين وجعل جميع الزايدين نازحين wajal jami'a naajihina saadiqin wajal jami'a saadiqina faa'iziin wa aghnina ya rabbana bil khidma lil muslimina abadan wa rahma wajal lahum fina udan wa khayra wa kufahum min azan wa dayra wa aghnina bi hubbihim li wajhika وأخرهم بحبنا فنسلك وجل جميع الإخوة والنسب في رحمة يوم ازداد النسب واجعل لنا هنا وهنا هذا زائد تودع ونعزى محا asalaamaaleykum yéen mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci yonent bi sant xaadimu rasulullahi sëñ Muntaxa Mbàkke ñoo ngi fii tey ci kër sëñ Moustapha Guèye ibnu alaaji sëriñ Gueye Badar nekk ci Badar Gueye ci gàmm gi nga xam ni at mu ne dañ koy def ci Badar Gueye ñu di ko def at mu ne alaaji sëriñ Gueye daan ko fi def mu doon gàmm goo xam ni ñépp dañ koy teewe mu doon gàmm goo xam ni at mu ne ñu yëkkatu ko te yàlla def ñu daje fii ci kër sëñ Moustapha Gueye di fi màggal gàmm gi muy bisub xéewal di bisub sant Seydina Muhammad di bisub tuub di bisub jégglu di bisub lépp mu doon gàmm koo xam ne nag képp ku fi teew te teew fi teewaay bu dëgg di jëf-jëf ju dëggu di wax wax ju dëgg at moo dellu see gis ci yow ak coppite ndax alaaji sëriñ Gueye doonoon na koo xam ni ñi fi teew ñëpp tey xam ko amul kenn koo xam ni ci àdduna mën ngaa toog fay alaaji sëriñ Gueye lenn ak lenn ndax nekkoon na jëmm joo xam ni doon yoroon lu kenn yorul te mësu cee teg nit lenn ñi mu uufoon ñëpp da leen a jaboote muy képp teew ci badar gi tey alaaji sëriñ Gueye defal na la loo xam ni sa waajur mënu ko sa ndey mënu ko sa baay mënu ko kenn mënu ko ba tey bisam bii doon bis boo xam ni tey ji tey njabootam gi taxawal muy seen Cheikhouna ak seen Moustapha ak ñeneen ak ñeneen ñu topp ci ñoom ba tey mu agsi fii mu agsi di leen ñaanal gudd fan ak wér di ñaan yàlla suñu boroom guddal seen fan ñu àggale seeni naal ba naal yeneen i naal ndaxte tey ji tey mbir mi tey fii mu agsi tey ñoom rek a tax mu agsi fi continuité bi ñu teg seen loxo ñu ngi koy def ñu war leen ñaanal yàlla yàlla defal leen gudd fan defal leen wér yàlla yàkkal leen suñu kanam tey ji nag bisu mbégte la bisu sant Seydina Muhammad la bisu teraanga la bisu xéwal la bisu lépp la Badar gii daal képp ku fi teew di fi def sa ñaq di fi def sa lépp tànki kanam rek nga am doo am tànki ginnaaw ndax boroom dëkk bi nekkoon na koo xam ni euh, ñëpp la boole woon jaboot boot ñëpp di dimbali ñëpp te yàlla tax alaaji Serigne Gueye doon koo xam ne ci doomu aadama yi ku ko xamul rek xamoo waaye alaaji Serigne Gueye kenn la njabootam gi tamit kenn lanu parce que ñoom ñëpp képp ku seen bàyyi uufoon njabootam gi téye na ne uuf la képp ku alaaji Serigne Gueye jàppoon jàpp nan la kon di ñaan yàlla ñu teew ko ay déwéni déwén ànd ak gudd fan ànd ak wér di ñaanal seen Cheikhouna Gueye mu yàgg fi te wér ak njaboot gépp di jaay nabil Moustapha sallallahu taala wa sallam jërë ngeen jëf jërë yii nag berneer yi la ah ah liggéey bi ki ko jiite mooy buri buri Diop moo ko jiite ak ñem ci àndal ah, ah? soxna buri jóob moo nekk nii sama wet moom moo jiite liggéey bi ànd kooku xaritam ak ki àndandoo ñu bokk di ko def at mu nekk at mu ne ñu teew ko fi màggal ko delluwaat ci yitte yi soxna Buri Jóob moo ko jiite salaatul lazi fi kul li sahrin wa fi safar xamaani ala maaxin maxal xabsa wa safar li sahrin wa fi safar xamaani ala maaxin mahal xabsa wa safar salaatu lazi fi kul li sahrin wa fi safar xamaani ala maaxin mahal xabsa wa safar صلاحي بكوني عاب دربي قديم عجيب به لقاء دمغن عن النفر رضيت عن المولى وعن غير قلبه عليه سلام من أبت بالظفر له زهر ربحت رباحا لم يكن قط مثله بفضل الذي كوني حبيبا له سار صلاة الذي لقاء دا كوني خليله على من به لطيب nabal badxa wal xadar futuxaatu rabbil harar si an qat maay bi bi jaahi lazi baahat bihi man alaw mudar rabaaxi ya fi ighdaa mi ghayril waraa badaa wa fi kulli sahrin zayd لربه وفي سفر بما يزراه الأذان قد فجاء بجاه عبد لمن لله قد جاء ربي Seigneur asos boo xam ne dañ koo taxawal pour euh, lu jëm ci wàllu kër si njiili bi euh, ñu fas yéene ànd ak euh, organisation bi ak Soxna ndey ci li nga xam ni moo moo mën a taaral bis bi waaw daaw nag lañ ko tàmbale woon ren mu gën a yokk ñoo ngi ñaan tamit suñu borom mu gën a jëm kanam a kanam a allah léegi nag ñoo ngi si ndékki yi dressé nañ ba pare après dañuy jox gaay yi ñu xéwlu bu ko defee ñu xaar añ bi incha allah bu añ bi ñëwee tamit ñu defee ko nii waaw bii nag euh, asos bi nag mooy waa Badar Xidma waaw ñoom kër gi lañ fi nekkal organisation bi tamit lañ fi nekkal badarit lañ fi nekkal waaw moo tax ñu bëgg liggéey bi lépp lu koy taaral rek incha allah ñu taxaw si ànd kook soxna Ndey ak Serigne Jili incha allahu bi ah bis bi comme niñ ko daan waajee rek ndax Badar moom ay tànk kanam la am amul ginnaaw ndax euh, dañuy ñaan yàlla rek saa yu gàmmu jub see xel yi di gën a set di gën a rek incha allah xalaat di gën a yaatu mbir mi di gën a yaatu tamit waaw ndax euh, day mbir moo xam ne ki ko sos da ko booleeg lu bëree bëree bari waaw te yii tamit yëpp ne woon na dina ñëw ñëw nañ ba gis ko waaw dañuy ñaan suñu boroom mu mu dolli rek dolli sutu yi waaw dolli xéewal yi ci barke Serigne Touba incha allahu arabi إبليس إذ ناديته بيا ولي أياس من لوح دجا ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لخير الله قبل في الدري بآل بدر الأسود كدري نفى لخير الله في الدكار كل أذن لي جره المكار علمني الرحمن في سفينة بأنني قديم ذي المدينة برأني الله لدى كناكي من كل جالب إلى المناكر أذهبني الله في كرم بزار قبل مبارز وعلى العسى دهاني رحيم عند داومي له بمعنى التزاوم يزر للمنى لدى لبرولي من قاد لي ما غاب عن كل ولي لقرى للبدر الأسودا من زهزح الوسي والحسودا يقود لي حيث أكون الله تبصير لا إله إلا الله ساق لغير الله فيما ينبع ما ساق قلبي وأعلى جنبا لله قد وصلت عند القلوى وسانني أما يجوب بلوى لله قد sëñ Moustapha sëñ Moustapha Diakhaté moom ko xam-xamee ko Badar waaw nga yàgg fee ñëw tamit yàgg teewee gàmm gi xanaa daal lan eh, saako ay témoignage rek ci bis bi comme que daa nga fi ñëw bu njëkk di fi ñëwaat ren du ñàkk nga gis ci ay yokkutee ki xeewal yoo xam ne mën nga ko baaxee mbokki taalibe yi alhamdulilah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah seydina Muhammad nabi lu muy wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ni nga ko waxee rek moom Badar moom saa boo fi ñëwee rek xam ni lu ñu gërëm rek am solo li taxoon sama waaja di laxasu wuti lépp jox ko sëriñ bi lu mel nii rek a tax sëriñ bi moom bu ko jëfalee bu ko nungulee sa kanam ak sa ginnaaw yëpp yam te ku ñëw Badar xam ne euh, boroom jëmbët na fi loo xam ne euh, bisu penc ma rek lay taxawee di jiital ci cant gi sëñ Cheikhouna Guèye mooy xalifaam ndax it bàyyi nañ ko tool bi waaye mi ngi koy bay bu baax a baax a baax ku fi ñëw xam ne taxaw na bàyyam ñu ngi jël suñu di ko teg ci loxoom ak suñu jigéen soxna Aminata Guèye ak njaboot gi yëpp ndax gis naa ni bu bis jotee amatuñ gën bëgg lu dul feddali seen bàyyi bisam bi xam na ni bis bi rek la amoon ndax man dinaa badar su ma ñëwoon fekk fi ay tali fekk fi ay làmp du ma yéem ndax jëmm ja damaa xam ne la ma ñu joxe la joxe la ko ñu jiitu woon joxe moom loolu la joxe ab xol ba nga xam ne moom la yàlla soxla moom la jox Sëriñ Tuubaa bu mu jeex takk desee lu ko dara jox dugal fa njaboot gi dëkk bi sax fa dugal kon mu tadaa wax ji du gudd mooy daal barke rek a wér barke ala sëñ bi ci barkeb Sëriñ Tuubaa ci barkeb dëkk bi la lépp di doxe ñu ngi fedd lu kóllër gi tey am mbégte bis la boo xam ne daal tànk maa ngi ci kaw suuf di ko man sama tànk bi danaa ko teg badar bu dul bisu màggalu Tuubaa bis bi may tax yëkkati ma génn sama kër badar gi ci la bokk ndax na ma demee woon moom la maa ngi sant bu baax a baax xam naa li ci des bu ci kii ba rek ko leeral bu baax a baax a baax. waaw El Hadj Serigne moom wax ci mu daf may daal di yomb lool lool lool lool ndax daa bokk ca ñooña rek moom boo koy xool ci ñi sax doo ko gis. suñu borom dalay lay dimbali ci moom baaxee la ci moom sa xol am foo ko teg mooy fu ko yàlla teg ndax bokk na ci ñi nu yónni man xam naa ne yoon yi mu ne bi mu fiy ne inspecteur la ci mayoon nañ ko loo xam ne lu mu nanguwul du dem bokk na ci kuréel googu foofu nag bokk fa yombul foofu bokk fa du may doom yi diw moo tax nga bokk fa foofu ndimbalu yàlla la daal li ma la wax daal te du ko génn mooy ci borom lu yàlla yu mag yi ci la bokk alaaj sëriñ Gueye yi ci borom ndimbalu yàlla yu mag yi ca cër yu mag yàlla yor loolu daal mën ko seede ci moom ci liñ mën a dégg la moom foofu daal laa yem fi mu tudd. asalaamaaleykum yokkute yi julli ci yonent bi sallallahu di ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi te wér yàgg ñoo jiite di ñaanal sëñ na mu yàgg fi te wér yàgg ñoo jiite ah témoignage bi moom c'est très simple dafay. wane lii boo ko gisee rek day wane lu bëree bëri ndax jamono yi nga xamante ni sëñ baa koy def di ko déparé ci benn gàtt buñ demee ba fi mu ne nii ah, mu nekk ay waañi waañ waañ bu su nekk daanaka ñu mën a rey ay ñaari nag ba ñetti nag xar yeeg ganaar yeeg yëpp yi kii nga war a xam ne kon yokku ne am na alhamdulilah rabil alamin di sant mag eh, magi dëkk bi di sant waa dëkk bi dëkkandoo yeeg yëpp te xam ne ñoom ñëpp kenn ku nekk jàpp nga ci baj sawaar alhamdulilah rabil alamina daal macha allah mbir mi moom kanam rek la jëm daal waaw waaw bés bi moom benn benn bés la woon ci moom ba daaw ko weccoog leen lu dul màggal Touba bu dul màggal Touba daal bés bi la gën a poŋ ci bés yi dëkk bi la gën a ponk ci dëkk yi ba tax na fi la koy def lu mu am lu ne ba dar waaw njaboot gi it ah, dund loolu xam ko màgg ci ah, lu ñu eh, yëpp seen mébét seen yéene yëpp dem ci bëgg-bëggu seen way juru tedd wa alaaj Sëriñ Gueye dikki ñëw fonk le ko dëkkam bi ba tax gis nga fi mu ne nii macha allah ah, kanam rek la jëm kanam rek la jëm yal nañ sama borom may ñu fekke ko ah, waaw préparation bi buñ ne bésu gàmm bi mawludi nabi bu jàllee rek ca lay tàmbali moom di waajal bésam ba bañ ne suba la daanaka buy des ñetti fan ñeenti fan sëñ bi daawul nelaw lekk daawu ko def ci day masantu rek di dem naan it toujours moom bi teelu ndoxam la yor di naan moom moo doon nekkam lekkam ah te yitteem yëpp mooy ku teew ci bés bi ah samborom faj sa aajo moom loolu yittewoo woon na ko te it boo teewee ci bés bi bëgg na doo fi jàmbat dara doo fi ñaxtu dara lépp daal macha allah fi mu ne bu del si waatoon ah, ak njaboot gi mu fi bàyyi duñu soppi seen toogaay ndax xam nañ ne ñoom ñëpp tegu nañ ci yoon ñi ngi liggéey ñi ngi a ah, ci jaamu yàlla lu ci ponku dëkk bi ponku dëkkandoo yi ak taalibe yeeg yooyu